na Sénégal dafa am nu ñu nu ñu nu ñu tabaxee quand d'autres dans d'autres pays on a choisi les coups d'État les guerres ethniques ah euh, les guerres euh, de de de de, de sécession Tout à au Sénégal on a toujours choisi le dialogue et la voie des urnes 2000 quand bi ñu doyee ci Abdou mm-hmm. dañoo def une mobilisation exceptionnelle votée indi Abdoulaye Wade 2012 mm-hmm. bi ñu jàppee ne Abdoulaye Wade a été injuste warul woon def troisième warul woon tenter une troisième candidature. Hmm. cinq pour cent la Macky Sall la gagné Abdoulaye Wade mu nekk une mobilisation exceptionnelle. et ce sont ces mêmes sénégalais yu jàpp ne ñoom du kenn du leen tuurloo seen deret pour ay waxu mandat Macky Sall bu demee un Macky Sall n'a pas dit qu'il va se présenter mën na leen bett deuxièmement bu présenté woo conseil constitutionnel mën na valider mën naa bañ a valider bu ñu ko valider sénégalais yi jàpp nañ ne ñoom. mun nañu régler seen problème mais yéen bu demandez vous semblez dans votre discours dire aux Sénégalais xeex lan la xeex. ak ban ban xeex ngeen bëgg ñu xeex dangeen bëgg ñu jël ay yat dem fekk Macky Sall ci pale bi. waaw léegi léegi ni ma la dégluwee religieusement dama lay ñaan su ma lay tontuwaat. nga déglu ma religieusement. d'abord man waxuma ne Pastef waxul ne kenn du régler affaire yi par les urnes. inscription ci liste électorale yi ñun dañu woo suñu militant ñu dem inscrire massivement lancé opération wër ndoom ba six mois trois mois avant def leen ci ay plateforme mobiliser leen woo leen pour ñoom ñu dem inscrire sur les listes électorales ba ñoom ñu def une ruée ñi gars yi ne am na plus de trois cent mille demandes nouvelle nouvelle inscription kooku kay gëm na élection kuy naan man kenn du ma teree nekk candidat ci élection ci élection kooku daf loo xam ne la beneen fois Pastef mi inscrit ci article trois ak article 4 ne conquête du pouvoir par de voies démocratiques kon la première réponse mooy kenn waxu fi conquête par d'autres moyens muy benn deuxième bi mooy dafa am discours boo xam ne tey dañ ko war a régler définitivement mooy gëmloo sénégale yi ne ay acquis kenn du ci dellu si ginnaaw kan moo waxoon américains yi ne leen seen élection dina jeex mu am contentieux post électoral contestation ba ñuy dem attaquer seen capitole ak fu ñu jaar ci démocratie yëpp ba doon fal seen 46e président kan moo waxoon allemand yi régime parlementaire bi ñu amoon démocratie bu ñu amoon ne dinañ fal nit démocratiquement mu créé seconde mu créé seconde guerre mondiale revenir sur toutes les libertés organiser bu benn élection kan moo waxoon béninois yi fi ñu jaaroon ak Meccaquere Meccaquere nga xam ne après bi mu nekkee communiste mujj na libéraliser dëkk bi def ñaari mandat dem que dinañ dellu si waat ci yenn ci yenn cooy ak Patrice Talon ak bëri dictatorial yi muy def. gis nga démocratie du acquis alternance 2000 dañu ko am parce que y avait une libre. alternance dañu ko am parce que y avait un pouvoir qui a ouvert le jeu démocratique pour ku bëgg a bokk bokk. alternance 2012 dañu ko am parce que y un une presse un une société civile debout mais y aussi un pouvoir ouvert au jeu démocratique ba sax jox organisation élection yi un ministère neutre donc bu ñu jàppee ne alternation yi am na par force dina amaat alors que. presse bi rôle bi mu waroon joué joué ko te di ma bàyyi ma yeggali foofu deuxième bi mooy parce que pouvoir bi ouvrir le jeu démocratique mooy loolu ñàkk xam histoire ci li mu xew ci àdduna bi ak ci sous-région bi démocratie du akide presse bi ban